asalaamaaleykum yéen mbokk internet yi wii di ñu topp fii ci banlieue production li ñu koy defee saa tey ji nag comme koy waxee ñi ngi fii tey ñi ngi nii ba léegi nii mbuur ñu am nag koo xamante ne kenn dootu ko présenté ci aaru Sénégal koo xam ne xañ na tey boo leen gisee kanam bi rek yéen ñu yàgg seetaan théâtre da ngeen ko xam waaye comme ni ñu koy waxee ñu fekk fii ci xewu Pablo muy Bakary bi nga xam ne moom moo fi tourné woon Bakary demal ñi bi muy loo xam ne des na ba tey ci xelu sénégalais yi waaye dañ koy nuyu di ko dalal te di ko ziar grand ñu ngi lay nuyu di la ziar euh, maa ngi lay nuyu di la fay lu bare bari yow ak équipe bi nga àndal lépp atelier production bépp maa ngi leen di ziar di kontaan euh, am mbégte ci seen teew fii ci Mbour ci euh, ci ngénteel Pape Lo loo xamante ne ni bon artiste bu ñëw rek wala bépp technicien ku ñëw rek wala scénariste euh, delloo nga ko njukkal parce que tànkam lu kenn daal. macha allah loolu laa la bëggoon laaj sax parce que dañ ne Pablo moom ku fekk artiste ci xewam doo ko laaj loo fi ut waaye dafa mel ne Pablo moom dafa exceptionnel ci ci ci ci techniciens yi parce que tey mun nañ ne bu mu xewlee dëkk dëkk nit ñi dañ faa jóge tey fekk si fii ku ñu fay sa bor nga mer rek la nga leb leb moo baaxul woon euh, man jàmm rek laa séq ak moom jàmm lañ ma séq ci festival yi ñuy daje activité yi dem yëpp kon bu yàlla dogalee mu ñëw ci sama zone ci sama koñ bëggante fekk nit tàgg ko ci faratas yàlla sunnas Muhammad yàlla may leen di ban mu di ko teral tey ngir euh, yóbbu ko mu dem sëyi kon man li may war mooy bu fekkee ni euh, euh, dëggu na ci man sama digganteeg moom du ma tànqam dama war a dagg ite yëpp ma ñëw depuis démb ba tey. waaye comme ni ñu koy waxee aar moom def ci œuvre mu nekk ci ci bopp sénégalais yi ba tey ba fu ñu la gisee rek seen xel dem ci loolu dañ ne yàgg ci aar yomb na loolu waaye def ci lu ñëpp yi fàttaliku moo jafe yéen troupe bi defoon yi lan moo nekkoon seen secret tey ba ngeen defoon produit bu mel noonu. ñun secret amuñu secret liggéey boo gis rek da koy jox euh, gëddaam jox ko limu moom xam nga bi ñuy taxawal troupe bi dañoo nekk euh, ñi ngi ci euh, maanaam vingt sept personnes ñu bokk benn koñ bokk benn kër bokk maanaam benn néeg bu ñuy fanaan quinze personnes dañ doon fanaan ci benn néeg. Euh, ñu am bëgg-bëgg bi sonn ci tarbiyu di defi ay formation di am ay diplôme di ñëw euh, bi ñuy def Bakri dañoo toog waxtaan ko def li olof olof di wax ngóobum xalaat mm-hmm. boole xel yëpp mu jox ñu Bakari mm-hmm. ñu woo sunu technicien def sunu maanaam tournage mm-hmm. duplier ko ay seede distribuer ko jaay ko toog desey loxo kese mais am tur parce que fii boo génnee soo dewulee dem Dakar tafu juwoo ci nit ñi sa carrière du sori waaye nit ki sooy ànd ak moom ànd ngor ak ànd nawle dafa am lu bari loo xam ne dafa jara sóor Yves ñaa woon na ma ndeysaan sama xarit ni ma ñëwal dakaar ma jox la néeg nga toog nga gérer. Mhm. Aïda Patra jamono yooyu mi ngi maanaam Soxna FM. Mhm. ni ma ñëwal sama kër nga kii yow li ngay def dëkk baa ngi toj. Mhm. Abdourahmane Pipo bi muy defal doomam jooju anniversaire Ndeye Anta. woo ma ma dem mu proposé ni ma ñëwal dakaar nga toog. waaye man su ma jógee woon fii à moi seul dem Dakar toog ngir maanaam def sama promotion ñi nekk ci sama ginnaaw dootuñu dox te dinaa am kersa parce que doomi gor laa ñëw di sëgg di leen xool su ma demoon Dakar jamono yi dakaar fëkk ma te man rek lañu war a mënoon yóbbu pour ma dem mhm. te su ma demoon fii dootul dox kon day mel ni garab gi bi màggee damaa dagg reen ma ànde ko ak ñoom nag toog lu ne fekk ma bi lu ma ci war a am ma am ko wërsëgu jaam yàlla ñu bari dañ ma proposé ma dem mais su ma jógee woon fii dem ak jamono yooyu na meloon troupe bi dootul dox waaye yàlla mi ngi ñu suturaal kenn ku ne yaa ngi sutur ñun ñu ñëpp kenn ku ci ne am na soxna am nga njaboot kenn ku ne am nga sa métier kenn ku ne yaa ngi yor sa kër yaa ngi sant yàlla ba tey troupe bi ñu ngi ci cinquante huit personnes bërki démb rek laa nga jee def euh, euh, activité bu mag invité képp koy autorité nekk ci seize commune ci biir département bi invité naa la nga ñëw indi say nit teraanga ju bari jox ñu ñu monte kër sargal ay nit tere leen yàq ci maanaam su ma mënti génn ci ay millions yu bari te fii ñu toog fi lañ gëmee bopp ci loolu fekk. macha allah bàyyiwuñu ñi ngi en cours ñi ngi ay tournage ñi ngi def suñuy activité euh, xëy na nag joti ci télé yi jox leen sa œuvre ñu teg ko mm-hmm. nit ñi xam la moo yombul mm-hmm. mais man maa ngi participé ci série yu bari mm-hmm. sama troupe bi di yeewu yeete ñi ngi ci en cours de tournage benn série bu euh, soixante épisode ñi ngi ñi ngi avancé ci lool teaser bi dina génn dinañ def euh, maanaam projection bi d'ici un mois dañ ko def ci biir septembre bi ñëpp mën te jot lu ko defee ñu commencé diviser di ko dawal macha allah balaa balaa ñuy loolu noonu tournage bi seen moyen yi bopp la wala da ngeen am ñu leen jàppale woon ak bi ngeen jógee ci loolu troupe bi taxawaay bi mu taxaw yàggaay bi da ngeen amatul woon moyen wala da ngeen décoration woon wala a nekkoon nit ñoo xam ne da ngeen a siiw te yoroo leen. ba tey amuñu ay moyen ay moyen amu maanaam théâtre kat yi nga gis sax ñuy tourner série bu dul woon producteur ba tey duñ dem amuñu ay moyen producteur moo am ay moyen parce que production c'est des millions ci guddi ñu toll. jamono yooyu dañoo nekk ak ay nit ñu xarañ ci wàllu technique am ay caméra ñun ñu sawar di cotiser di dajalaatu di def suñuy œuvre tourné ko ki filmé affaire bi moo def duplication bi ay CD ñu jaay ñu fay ko tournage am fay ko duplication CD am xaalis ba jeex amuñu ci un franc Bakary lekkuma ci deux mille cinq cent. macha allah Bakary ak produit bi ni ñu ci sonne ak coono boobu nga xam ne dem nga bay sangoo ay sàkket lekkoo ci deux mille cinq cent francs. waaw lekkuma ci deux mille cinq cent mais tey xëy na moo tax tey nga dagg sa yite toog ak man fii di ma propose di waxtaan ak man lii rek moo gën ñaari junni. dëgg la mooy mooy li ma la doon wax sànq ne def dara yomb na waaye def lu des si bopp nit ñi moo xaw a jafe. Sénégal nag euh, am na ndaanaan bu mag bu ko wax am succès fii yomb na mais téye ko moo jafe. ko moo jafe nit soo xamee kuy day am géet mhm. su bañee doon juru ñëpp macha allah mais troupe boobu ba ba tey jii mu ngi dox actuellement fi nga xamante ne bi fi lañ toll nga xam ne jamonoy téléfilm moo ñëw jamonoy série est-ce que du aar dafa dépassé troupe boobu ci niveau bi ñu doon wala yéen yéen a bëgg liggéey pour boo leen nekk lu bees su may def projection bi dinaa la woo déggoo biir wax nee laa nañ ay formation mhm. dañoo defi ay formation mhm. def nañ ay formation te xëy na ndaanaan yi toog war xool lii ngay def ak man yëpp danañ xam ne def nañ ay am na nag bon lu ñuy gëstu théâtre kenn du man lépp kenn du xam lépp mais am nañu ci yàlla jagleel loo xamante ni nii nawuñu suñu bopp ñi ngi dem di gëstu jiwaat ñi ëpp xam-xam boole ko ak li ñu yor parce que kenn du ko jeexal waaw lu nit def rek man dama koy naw ndax ni mu def ba def ko xam naa ko waaye li nekk ci ñu nit nawuñu ko mais dañ ci am yaakaar di ñaan yàlla di xool feneen foo xamante ne nii fa la ñu gën mën a yokkee suñu xam-xam pour def ko parce que actuellement théâtre dafa am na ko gars yi taxawal léegi macha allah tey département Mbour kon lan la manqué ba nga xam ne yaa ngi wax sànq ne def yóbbu ci télé yi moo jafe mais xañ na tey département Mbour bu fekkoon yéen am ngeen jàppale yi war wala ngeen def boog loo xamante ni nit ñi gis nañ ko xañ na tey dooleen dem sax yéen envers télé yi mais télé yi ñooy ñëw ci yéen. département de Mbour li fi manqué moo manqué Pout moo manqué Thiès moo manqué fépp. Mm-hmm. am nañu xam-xam ñu ngi ay caméra ñu ngi ay technicien mm-hmm. dañuy filmer boo ko dugalul ah defoo ko ci Facebook bi mhm. defoo ko ci ay statut mhm. ci WhatsApp mhm. kenn du ko gis tele yi tegatuñ ko ndax boo demee seen trois lañ fa teg ci ay série yu war a daw bu doon daw fii ba ginnaaw suba du jeex comprend dañoo toll foo xamante ni télé yi ñoo ñoo ñoo gasu ci business business di sa film yow acteur bi dem utti ay sponsor mhm. indi ko ci télé bi partagé ko ak télé bi mhm. doog a jël li nga am ak say fere jox télé bi mu jël ñu teg ko nit ñi xam na te doo ci am dara mhm. loolu neexul waaye nag gémmiñ gu yàlla xar def ci pepp def ci macha allah mais fi ñu toll nii daal kon mën nañ ne troupe boobu ak Bakary ak ñi mu àndaloon takku nañ ba yéen yéen a ngi ñëwaat ñu ngi ñëwaat mais ci beneen facette ci beneen facette série wala téléfilm ou art comme théâtre. téléfilm Le film le cinéma africain là. cinéma africain koy sous-titré en français. Mhm. Dret Mbadara le tout doux. Deret Mbadara. dara. ok deret mbaa dara. deret mbaa waaye comme yéen tey li ma ko waxee yàgg ngeen ci aar bu njëkk xam ngeen ni ñu doon defee théâtre nga xam ne dañ ci doon sooma def ci formation am ci ay diplôme toog par exemple répété cinq ans door a mën a génnee benn œuvre tey Bakary ci boppam naka la gisee li nga xamante ni bi tey noonu la ñuy dundee téléfilm nga xam ne gars yi fu ñu tëbee lu leen neex tourné lu leen neex def est-ce que du loolu tamit moo tax tey aar bi tardé. waaw dama am na ñu ci tardé wul. Mm-hmm. man su ma neexoon. Mm-hmm. chaque trois quatre mois ma génne benn théâtre sànni ko nit ñi xool ko mm-hmm. waaye bëgg a génne rek génne mm-hmm. déedéet war a génne mm-hmm. te toll ci génne génne moom laa bëgg ma parce que du ma def tout le temps may génne di génne di génne lu nit ñi duñ xool amul njariñ gars yi dañuy am buzz léegi ci benn kii mais du def six mois affaire bi fay. Mhm. parce que qualité ba nga koy defee la ak na nga koy defee. Mhm. Bakary 2007 la ñu ngi ci lan 2020. 2022. ba tey yaa ngi di ko fàttali ko. waaw 15 loo joxul cëram. du la mhm. delloo li nga moom. macha allah mais tey Bakary mu ngi seetaan téléfilm mu am actuellement nii Sénégal. dama koy seetaan. am na ci téléfilm boo xam ne xañ na mun nga ne bii am na qualité niñ ko tourné jaar na yoon donte critique bugguñu ko ci yeneen yi mais euh, comme ça téléfilm boo xam ne exemple la tey ci yi daw. Euh, defuma formation audiovisuelle. Mm-hmm. mais damay naw ay artistes ci seen technique de jeu. Mm-hmm. damay naw aussi réalisation ci ni mu mm-hmm. xalaate ba won ko nit ñi ñu ñu kii ko. téléfilm yi daw yëpp daanaka ci bari am na qualité. yu bari amna qualité waxuma aw xam-xamu qualité image. dëgg la aw xam-xamu maanaam euh, cadrage. Mhm. cadrage mhm. mais xeyna amna xam-xamu concept. Mhm. ak contenu. ak texte ak dialogue. waaw gis naa fi yu pire macha mhm. allah ñu ngi góorgóorlu. Mhm. macha allah léegi fi ñuy tëjee ak yow nag mooy lu mel ne département Mbour est-ce que am na comme li am Dakar ay arco euh, foo xam ne artistes yi foofu la ñuy dajee di def ay formation di def ay festival est-ce que am na département Mbour. mois bi ñëw rek war naa dem dar maak yow yeete benn festival. Mhm. man caada laa bokk. Caada Caada damaa bokk ci seen membre fondateur yi. membre fondateur. Caada ña ngi ko taxawal ca guy jamaa ca taatu seen beneen membre fondateur muy waaw xam naa <laughs> de passage ñu ngi koy nuyu ah. sama nit la. Ah. te it allah léeg-léeg damay dem ba gàkk du ma xam sama bopp tëju. Mhm. su ma ko rek mu ubbil ma ko. macha li ko yàlla may yàlla na ko yàlla yokk. Mhm. ci barke Seydina Mohamed. Seydina Mohamed balaa balaa ñuy tëj sax mhm. ñuy seede ne moom ak ñun li tuuti tuuti bind na téléfilm may may ñu oh, scénario scénario bi may ñu réalisation ñu ko ciy sant di ko gërëm moom Mbaye Ndiaye Sy Bakary tey sooy tëj lan ngay tëjee ñi lay seetaan euh, li may tëjee maanaam mooy damay sant képp ku fi toog mm-hmm. euh, ci xew bi mm-hmm. di sant ñi ñuy seetaan mm-hmm. di sant ñi nga xamante ni ñi ngi bëggee maanaam site bi waaye di leen gërëm yéen ñi waral waxtaan bi di leen encouragé mm. yàlla na dem ba raw télé yi fi mag amiin yaa rabbi yàlla na dem ba fiy dégg France 24 amiin di fi dégg yeneen tele yi ñu dégg leen fa amiin yaa rabbi te euh, li ma leen di ñaax mooy mm-hmm. bu leen bëgg a interviewé rek interviewé dëgg la bàyyi leen ba war a interview ngeen interview dëgg la di nga laaj nit mu tont la mhm. nit bëgg la mhm. nga teg ko tont ba wala kooku tax kooku bañati laa xool dëgg la ñi bëgg a wax bari na mhm. waaye ñi war a wax danoo nekk dëgg la jërëjëf dëgg la macha allah jaa ngeen jëf yéen doon siyaar comme ñeen ñu doon seetaan dimanche comme ni ma ko waxee Bakary lañ amoon tey Bakary nag li wax leer na 2007 la woon produit waaye ba léegi tey fu ñu ko gisee suñu xel demaat ci produit boobu moo tax liggéey lu am qualité rek mooy fay jaa ngeen jëf